salaamaaleykum chers internautes yéen ñuy safoo chaîne bi di Mouhalim TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo di nuyu ñuy safoo chaîne Mouhalim 1 euh, Mouhalim info 1 2 3 4 di leen jaajëfal tey nag dañ ñëwoon fii ci daral bu marché Madiana Mbare pour def micro trottoir ci waajal tabaski gi pour laaj ñi nga xam ne ñoo fi nekk di jënd ak a jaay naka la ñu gisee marché bi ak wàccaayu tabaski bi ndax xar yi cher na wala yomb na ak naka lañu gisee maanaam jaay mi ak jënd mi. kon nag ñoo ngi fii ci daral bu marché Mbaré comme ni lañ ko waxee woon rek xam naa dañuy dem ñu waxtaan suñu papa yi fi nekk ñu laaj leen la gisee jënd mi ak jaay mi ndax xar yi prix yi baax na. waaleykum cher ah. euh, boo nuyoo ñu ngi lay laaj nan nga tudd. man Alassane Sow laa tudd. Alassane Sow lan moo nekkoon sa ittee fii ci daral bi. daral gi de ittee bi li fi nekkoon sama ittee mooy ñu jàppale ñu rek ci daral bi. Ah. jàppale sama aliment bi. buñ ko mënoon di ko wàññi oyofal ko bëgg nañ ko ah bëgg nañ kay ñu yokkal ñi sécurité bi. waaw ndax buñ da nga ñëwoon pour jënd wala da nga ñëwoon pour jaay waaw man damaa ñëwoon pour jaay. da nga ñëwoon pour jaay waaw damay jaay si man jaay kan laa yàgg naa fi ba daral Madiana bi yàgg naa fi. Ah. waaw ñaari tur yi moom mooy dàkk nag ku ko dëgg ci rajo bi da nga xam ñaari tur yi am naa ko dañuy wax mbuus sow. waaw dëkk man gis na wax mbuus sow jula yëpp bari ñu ko buñ ko dégg dañ xam sama tur la. waaw alsan sow nag moo nekk sama tur. waaw léegi yow xar yi naka la demee ak événement tabaski bi. client yi ñu ngi ñëw wala. waaw client yi ñu ngi ñëw ndànk ndànk ndànk ñu ngi ñëw ndànk ndànk di jënd par ndànk ndànk rek xar yu mag yi ay pour yi ñu ngi dox ndànk-ndànk. am na pour yu xaw a am yu dëgër tuuti am na pour yu xaw a oyofante. waaw ki jënd ak ki juddu duñ bokk pour yi. client yi dañu dégg fan yëpp ñu nekk di jooy ni xar yi daal dafa cher wala sax dafa manqué léegi ana lan moo waral loolu. li waral loolu manqué bi moom xar yi moom li ko manqué mooy naa xar yi ci gën a bari euh, dañoo xaw màng sori nañu waaye xar moom am na ci réew mi moom xar moom am na fi moom am na waaw te manqué jafe yi nag. aliment bi bu yàgg yokk na jafe-jafe bi parce que ah. yaa ngi jënd doon jënd saaku ripaas yaa ngi doon jënd ay 6000 wala 6500 léegi dem ba ngay jënd ko ay 15000 xam nga loolu ay jafe-jafe la. Ah. moo tax nga jënd xar boo xam du seer na lool du mën a dox. léegi lan nga jàpp ni mooy solution bi ak lan leen état war a jàppale pour ngeen génn si jafe-jafe yooyu. wàññil ñu éléments yi ji jimbali ñu wàññil ñu élément bi moom bu ñu wàññi woon élément bi moom. Ah. Euh, maanaa coono yeneen i jànkanteeg place yi foo bëgg taxaw ñu ne leen nii nga fere nangam nga fi fere nga soog taw loolu lépp coono la. léegi papa ban message ngay lancé di nga tàggatoo. message bi mooy tàggatoo maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tuyu président yi di nuyu camarades yaay di nuyu président Macky Sall maa ngi koy di ko félicité di ko gërëm ñun ñu ngi dëkk euh, messere Mame Balla ñu dëkk bu ko ko Macky Sall déggee na xam ne ay gaayam lañu dëkk Mesere ñoo koy nuyu di ko gërëm. ñu ngi kontaan mu ngi góorgóorlu na yokk góorgóorlu bi nag. kon baax papa baax na ñu ngi lay jaajëfal. waaw waaw Safo Mouhalim ba tey ñu ngi nii taxaw ak sunu beneen papa ñu fekk ko fii ci daral bi léegi papa ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo te nga wax ñu la. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. man Serigne Seck laa tudd Baye Fallou Cheikh Sadio yi. sunu jëwriñ ñu toog mooy chef de daral gi mooy jox ndigal lu ñu wax. xar yi moom lépp a seer. xar yi seer na xont bi seer na. ndax maanaam bu nee ba saako ngooñ jar junni kilo rewaat jar quatre cent lépp lu yomb moom fi mu ne amul moom ci Sénégal lépp a seer dund bi seer na xont bi seer na. papa nga jàpp ni loolu lan moo ko waral seeraay boobu. moom li ko war moom mooy gouvernement bi ndax gouvernement bi ñoo war a jàppale peuple bi bu ñu jàppalee peuple bi rek peuple bi mën na liggéey ndax doomu aadama dara ñorul lu liggéey liggéey rek léeg-léeg ñor ak dund ak dund seenu ñaq waaye lan li yomb moom fi mu ne amul ci àdduna muy dund bi muy dund doomu aadama bi muy dund xar yi ndax saako ngoom bi demee bay jar junni kilo ripet quatre cent lépp seer na mais bi tam maam moom euh, lan mooy maanaam état bi lan mooy liggéeyam lan la war a def pour ngooñ mi wàññeeku. Ah, état bi ngooñ mi su ma juumul fii lañ koy amee. waaw waaye lekkoon kon ngooñ ñen ñoo ko yokk état bi lan moo ci yoonam ci euh, yokk euh, seeraayu ngooñ boobu. a ah, waaw seeraayu ngooñ bi la ko yokk. waaw mooy maanaam fekkee maanaam état bi dafa dafa yokk. ñi nga xam tam ñoo yor seen bas seen waa ñi nga xam ñoo yor seen om il faut ñu yokk ndax ñu mën a am dara maanaam ñoo man a jàppale peuple bu ñu jàppale bi lépp wàcc ma a jël ñoom ñoo mën a financé bi xaalis ñoo yokk bu ñu yokkee maanaam peuple il faut ñu yokk bu état bi yokk léegi tamit dañu dégg clients yi di wax naan euh, xar yi dafa cher même état bi am na lu mu yokk mais daal jaaykat yi dañ ci xaw a laxas jaan te sax wax xar yi seer du lu xar yi seer ndax jar junni kilo kilo kilo war di jar quatre cent yow boo jëndee am saako ngooñ ma ñaari fan ma jeex ñaar maanaam nga jaay la mat quinze mille mbaa vingt mille jëm ngooñ ah na yoo xam daanaka fi ma leen jaay la ma jeex cinquante mille kon fu ñu jaar rek si état bi ñoo mën a jàppale peuple bi ndax peuple bi état bi la fi nekk kon état bi nga mi ñoo mën a jàppale peuple bi. ban message nga am boo xam ne da nga koy lancé état bi ak ñi nga xam ne ñooy jëndkat yi. ah waaw li ñoo wàccee ñu may lancé état bi jàppale peuple bi mooy doomu aadama yi ba xar yi yomb ndax fan yii yëpp naa ministre bi wax ne saako repas bi doon jar quinze mille dina ko wàcc ba ci cinq mille waaye loolu moom ësseegul ñu ne moom. gisaguñ ko fi. te ministre bi nga xam moo yor wàllu waa wàllu jur gi ma wax bépp di ko dégg adduna bépp di ko dégg. mu ne saako saako repas bi doon jar quinze mille dina ko indi ba cinq mille. ñoo mën ñu ñoo mën a ñoo mën a dimbale peuple ñoo mën a jàppale peuple ci fànn yëpp nag. mu ci dund doomu aadama yi mu ci dund xar. papa léegi kon na état bi peuple bi leen fa teg. papa léegi kon mën nga tàggatoo. waaw Mouhalim Info ñu ngi lay jaajëfal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jaage na jëf. jaajëf. waaw kon nii ñii Chafaw Mouhalim TV comme ni leen ko waxee woon ñoo ngi fii ci marché Mbaré ya comme dégg ngeen ko ni ko sunu papa yi waxee am na sax ñeneen ñu nu bëggoon a waxal waaye daal dafa mel ni dañu ñemewul caméra yi. am na sunu benn papa bu ñu waxal léegi nii bu ñu wax Njaga Amar moom moo nekk fii euh, moo jiite daral bi nekk fii marché Mbaré ya mais ñuy xamal ni sax maanaam repas kilo bi mi ngi daan jar cent soixante xaw ma cent léegi ñu dem ba yóbbu ko ba cent soixante quinze fanweeri juróom léegi ñu dem ba yóbbu ko ba quatre cent francs ak saaku ngooñ yi ko métti na lool ñu bëgg itamit état bi jàpp ci jàppale leen ndax ñu mën a liggéey mën a daal jàppale ñi nga xam ni ñoo di jëndkat yi ngir ñu mën leen a ñu mën a jënd ñoom it mën a tabaski parce que daal kenn du jaay wala ngay liggéey te doo ci am dara di leen jaajëfal di leen ñaan ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube ti TV tey abonné euh, tey liké di partage vidéo yi tamit jaa ngeen jëf